salaamaaleykum yéen a ngi si Géejawaay info.com dans l'émission Hall Artistes. Aujourd'hui, nous sommes ici à euh, Guédiouaï, Marché Ndiarem, Angle Mousse. C'est un artiste qui a été dans le game. Donc, nous avons Bou Sacré. Donc, aujourd'hui, nous avons fait l'émission dans l'émission Hall Artistes. Angle Mousse, donc Marche Ndiarem, c'est un artiste qui a été Bou Sacré. Donc, Bou Sacré, nous avons fait Hall Artistes avec Mbaye Prési. Donc, Bou, c'est mon première question, moi, ma carrément kan moy Bou Sacré. bon en fait euh, maa len di nuyu ah, di len nuyu di len di remercier en plus di rafetlu li ngeen def ni c'est très important en fait euh, comme li nga wax euh, seeti artiste moy dox artiste c'est très important man koy man koy man ngi koy rafetlu émission bu baax baax maa leen suivre mi ngi nice en fait Bou Sacré Bou Sacré artiste le artiste le artiste Guédiawaye la artiste Sénégal la artiste Africa la artiste la boo xamante ne nii base am angle mousse la euh, basam boo xoolee mooy fii ñu toog nii euh, gars ñoo nekk nii si ginnaaw bu sacré artiste la boo xamante ne nii voilà sacré faat la nekkoon ku ñu ku dégg sacré faat di nga xam exactement groupe bi évolué nañ ci pas mal de chose donc euh, def nañ pas mal de scènes def nañ affaire yu bëri yoo xamante ne nii liggéey nañ ak ay yu bëri donc quitté nañ ko ñu ngi ci suñu liggéeyu bopp bu sacré euh, février la ñu ngi ci novembre donc euh, entre temps liggéey nañ ci lu bëri donc bu sacré mi ngi noonu mooy mooy mooy mooy mooy artiste Ndiarème artiste Guédiawaye artiste Africa artiste Sénégal et puis voilà quoi. waaw bu sacré man sama beneen question mooy en fait euh, yow ñu ngi la xamee woon ci sacrifice

muy euh, kees maa ngi koy nuyu de passage li may wax li may wax ci émission yi rek laay wax fii du du ma dagg link ak moom te xalaatuma ko sama àdduna parce que li ñu jot a vécu yaakaar naa foofu bàyyante mënu fa am ku dem ku dem ba ay parents am nekk say parents ku dem ba ngay fanaan seen kër moom bu fa nekkul ak bu fa nekkee ku dem ba ngeen di fanaanante di leen doxante et puis foofu link dagg link daggul quoi question de sentiment la ak sanction. en plus question de euh, waxtaan la communication bu moi yoon talk ñu en fait actuellement boy, mon nom mën naa ma pour def ben affaire pour sénégalais jot ci limay def parce que toi-même tu sais que ni amna lu fi nek ci man donc euh, té yow et bi nii amna lu la gëna préoccuper préoccupé et loolu duma la ko bañal parce que loolu nga sentir et puis dama la koy accepter en fait man ñu tok ñu waxtaan ci lolu mu ne ma t'en fais pas lolu du metti da ngay def ben affaire da ngay def maxi wala nga def moma njëkk sax jox idée yooyu ngay jox maxi wala nga def album wala nga def whatever def son vidéo single extrait bi génne ko lolu day dil la dafa lolu ñu appuyer lolu day nice teewul buñu après buñu sentir tomorrow wara jobat benen affaire on va travailler ensemble et ci ñun ci lolu la ñu nekk du coup euh, comme link bi dagoul c'est juste que vous sacré mon sentir de projet solo actuellement à ko quoi mais c'est juste cela donc euh, du link bu dagg carrément non non. Vous, man sama beneen question moi, je sais ni ñuy liggéeyee ci groupe et aussi ni ñuy solo donc par rapport à la transition est-ce que ça a été difficile voilà, ça a été facile comme comme yow ci groupe notamment, tàmm travail. bon rythme bi rythme bi bien la parce que man d'habitude man ni ma mus mel ñep xamnañ lolu on a laissé tout parce que d'habitude gis nga déjà son bima ma risque la ko tuddee. risque c'est-à-dire bayna lu bari japp musique bi comme xam nga son plus vidéo mi ngi YouTube bu sacré ngay tapé di nga ko gis euh, bàyyi naa lu euh japp musique bi kon donc. rythme mi ma liggéey ak groupe bi rythme bu ko raw lay liggéey pour l'instant te groupe bi difficile on na mais xam nga lan moy lan mo neex. ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci group bi même manager Moustapha Sacré mi fa nekkoon moom mooy manager jamono bi même agent de presse bu fa nekkoon muy Bas Sacré moo fa nekk moom mooy moom moo nekk fii nii instant bi nii euh, même gars yi ay Jean ay Kéba xam nga sama gars ñoom ñoom ñoom ñi ñi may fréquenté cest à ñi may fréquenté ñëpp ay Sasa Sacré ay ay Binet et cetera ñoo ñëpp ñooy job ensemble instant yi nii nii ñi nekkoon donc philosophie bi changé wul. Mhm. Euh, non non non c'est-à-dire job bi moo gën a intense instant bi lu tax job bi gëna a intense mooy euh, c'est juste que yow xam nga liguey bi xam nga ni artiste bu joggé ci ben affaire wara dem ci benen étape ñëpp koy suivre ñëpp nan bon en fait ki lu tax mu bàyyi li ñu wa ñu bari comprendre ñu dañ nan comme groupe la woon groupe bi mëna na bàyyi fayam donc nañ ko sétane bu dé mom kese la lu muy def est-ce que xam nga de ce fait amatuñu amatuñu tarafatal ay ni lu ñu maye amatuñu également par exemple ben, ben, ben, jour bo xamante dañ koy tok té ni may wax ak yow studio lañ studio lañ ñew timis fekk ci bi gis nga émission bi du coup mu lay ñun dañuy liggéey quoi en fait bi a intense mais bu ne bu dee cadre job ak bu li muy job bu li muy job a metti li que li deux di job benn nit di job actuellement moy gëna metti té te dañ ko gëna yok dañ ko gëna yok yokk fanaan studio yi sama gal ay mant jour nga ni fananuma fi ma studio du job et puis alhamdulilah quoi. wa ok légui bo ñëw bu sacrifice ñëw évoluer nek ci milieu bi tout récemment gis nañ nga génne ben single muy risque bi est-ce que mën nga ñu wax euh, single bobu lan moy philosophie bi ak pourquoi le titre risque quoi waaw mais moom laa la répondre tout à l'heure c'est-à-dire xam naa dama ko brefal rek vite fait mais répondre naa la léegi la on a laissé tout on a on a on a on a presque laissé tout pour jàpp ci musique bi en fait am na leneen ay yeneen affaires yu ñu doon def doon nañ ko def bàyyi nañ ko ñi ngi ci musique bi amna na ay yeneen affaires yoo xamante ni c'est-à-dire comme lu mën na la jox ben exemple exemple bu yomb moy tey jii nii maa ci groupe maa ngi ci groupe maa ngi ak yenen nit yo xamanteni ñi ngi doon liggéey. feneen ñooñ dañ leen a croix dañ leen a pousse pour pour pour pour pour poursuivre suñu carrière c'est-à-dire pour pour pour pour fu ñu bëgg egg suñu objectif ñu suñu objectif ñu atteindre ko en plus bàyyi nañ li nga xam ne nii mooy études yi cest à bu ñu nee bàyyi nañ études yi mooy actuellement bañ doon daan daan dem université dematuñu université studio tànc nañu kon donc loolu risque la comme xam nga bàyyi nañ affaire yu bëri jël nañ suñu diplôme taxañ ba mu rafet ñu tegee ko ne suivre musique bi donc comme yooyu ay risques la yoo dañ ko jël en plus de cela également on est en train de travailler avec des des gens yi nga xam ne ñu ngi suñu dans dans c'est-à-dire dans l'ombre quoi donc euh, ñooñu tamit risque lañ jël pour liggéey ak ñoom et puis c'est c'est ça en fait. mais beneen question bi mooy kii mooy bu Sacré-Cœur ñëw na bu Sacré-Cœur bu ñëw na donc léegi. da nga signé si benn label parce que tantôt dañ lay dégg yaa ngi jéggi tantoo tantôt yaa ngi feneen ak feneen mu bëgg loolu. nga non non mais ah, ñu wax tantôt feneen ak feneen bi fan la parce que da nga ne tantôt yaa ngi jéggi raay nga wax tantôt feneen ak feneen bi fan la. mais wax ñu carrément. non mu ngi dafa si label wala signé wul. label c'est-à-dire na loo xamante ni boo ko waxee rek dama c'est-à-dire mën nga réeral ñi may suivre quoi parce dañuy yaakaar ne bu benn gaan la buy fréquenter n'importe quel studio man je fréquente même des rappeurs sama gars yi ma xam ci ay rappeur carré connexion la du ma wax la ko nga mu clair quoi ñoom laay toogal fa laay fanaan yenn saa yi sax quoi comme xam nga carré connexion mooy cerveau mooy ñoom jibi ñoom xos ñoom buna ñoom baxas et cetera ñooñu laay fréquenté comme ay rappeur mais je fréquente pas des rappeurs aw ma kenn sa à dire benn affinité boo xamante ne nii war nga mën a toog ne bu moo wax ak kii fii lii wala wala bu moo dem studio bee doon ko fréquenté non non c'est-à-dire benn la ñu waroon ay malentendu am c'est-à-dire ko malentendu sax euh, ci terme mais damay nan ay voilà malentendu bi sax ñëwaat ci Cheikh et puis suñu relation max Cheikh quoi en fait instant c'est-à-dire duma fa nekkuma fa artiste bu fa comme parce que vous vous artiste et man pour signer ci ben label pour l'instant mais en collaboration en partenariat ouais man ak Dieye Guiraye fa laa jógee nii dèjà man ak Dieye Guiraye ñoo am collaboration di liggéey ci sama projet bi nga xam ne nii libido moo war a génn mois de novembre. waaw si projet boobu laa bëgg ñu ñëw quoi donc euh, bu yaa ngi teg benn projet commencé mm. seen liggéey. dama bëggoon nag nga wax ñu si projet boobu nga defal ñu benn résumé projet bi lan moo ko wundu ce sera benn EP. <coughs> Euh, mixtape lay doon wala album carrément lay doon ak ak contenu projet boobu lan la quoi ak tamit kan lañ mën xaar projet pour mu génn hmm, c'est important loolu leeral ko dina ma neex parce que gagner, mais là, ngi may fait fan la affaire bi faire fan la affaire bi l'affaire fan la affaire bi toll et dinaa am occasion pour wax ko fii comme puisque télé bi moom macha allah day jàllale affaire comme pas possible du coup ñëpp dinañ ci jot xam nga ci groupe laa jógee février là commencé sama sama carrière février novembre c'est combien de mois. nga matul sept wala huit mois enregistré naa ci plus de plus de dix sons war ci génne son sons comprendre nga mooy maxi bi tourné naa ci vidéo génne naa ci vidéo comprendre nga kon donc ci ci diir bu gàtt boobu noonu def naa ci yooyu yëpp macha allah alhamdulilah léegi projet bi mi ngi tudd libido libido boo ko déggee bon vrai sens du mot dalay yóbbu ci yow jàng xam nga def nga terminal dalay yóbbu ci ay rapport sexuel ay pulsion ay désir yu lay animé pour nga satisfaire sa libido en fait loolu la ñoom loolu lañ lañ définir étymologiquement le mot mais ñun nous sommes des artistes en plus également dañoo xam mot bu ne am na sens figuré dañ koy utiliser figuré bi c'est-à-dire ñun sensation bi ñuy am sensation bi nga xam ne dañ koy am

sama une famille suma ko waxe famille sama papa ak sama yaay yëpp moy famille ak famille euh, en fait nous avons ñi nga xam ñi ngi job ci affaire yi comme ku ci melni sama maman Mariama job mang suis koy mang koy char bu baax baax diko beggé diko wax ne yaay boy Je sentir affaire yi bu baax baax baax baax min ci japp bu baax baax baax bu ma sentir ko moy Pamboj moy moy maire Ndeye Binta Sall mooy ñëpp ñi ne ñu ngi ciy jàpp man maa ngi leen di sentir mënu ma lim ñëpp mais tamit sans oublier sama staff sama man leen di béggee bu baax baax baax baax mooy sama manager mooy agent de presse bi la communicateur la communicatrice sama ñëpp ñëpp sama staff cat ba cat maa leen di béggee sama waa ñi may fréquenté gars yi fii ñëpp parce que cër bu mat sëkk sëkk la ñuy def ci liggéey ba ma yëg ko ba ma santir ko en fait man sax parfois damay ruus parce que parfois ñu def ay actes yoo xamante ni ay gestes yoo xamante ni vraiment damay ne non lii moom jaru ko woon quoi parce que kuy sacrifier ay affaire am pour def ci affaire yi donc vraiment damay damay damay kontaan di bëgg sama ñaari tons yi nga xam ne ñoom laa nekkal ba pare ñu nekk sama référence muy Beydi Sey ak Ablaye Sey ma leen di bëgg bu baax baax ñoom ñoom ñooy samay référence lu may def rek ci ñoom laay xool moo tax du ma def lenn di nuyu wala sama sëriñ sëñ Cheikh Soukay sëñ Cheikh Soukay Mbacke maa ngi koy nuyu di ko siyaar donc di la wax ne ñi nga xam ne ñu suivre télé bi Euh, nañu xam ne Guédiawaye info nekk fi pour dara lu dul joxe ay information et puis job bi mi ngi nice comme na leen gars yi dem suivre seen seen yi dem cliquer abonné fa di suivre actualité yi di xool parce que ñu ngi gis li ngeen di def lépp ci sport bi ci culture bi et cetera man maa ngi koy suivre te mi ngi may neex te yal na yàlla yokku leen quoi ba ngeen di yëg ko voilà quoi. yeah merci bu Sacré moom la bëggee bon yéen a ngi woon seen émission xooli artiste ak bu Sacré donc ñu koy bëggee ñu nekkoon Angle mus fii donc Guédiawaye di leen jox dig daje ba beneen yoon ak Mbaye Prési restez connecté sur guédiawayeinfo point com ba beneen yoon peace.